ànd ak ki nga xamante ne suñu xarit la suñu wëllëre la ci xew wu mag bu nga xamante ne amoon na ko fii mu di ngénte loo nga xamante ne lu ama am solo la dinañ ci dikk ci kanam tuuti ak ay témoignages mais euh, ki nga xamante ni moom la ñuy dal tey mu di al imam Dramé dafa nekk nit ku nga xamante ne dafa ànd ak actualité ànd ak tamit aussi politique foo tuddee politique gu Sénégal danga ko ci tudd ba tax na ñu bëgg a jël ci moom rek ay quelques question yi nga xamante ne incha allah dinañ ci apporter ay réponses incha allah. Euh, Euh, Imam Dramé ñoo ngi lay nuyu Sunugal 24 mi ngi ànd ak yow di la ndokkeel ci bis bi ci ngénte lu neex li nga xamante ne macha allah lépp doy na. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Abdou maa ngi lay fay di nuyu sénégalais yëpp di leen ndokkeel ci weeru gàmmu wi di ci ndokkeel jullit yëpp di wax ni yàlla na nekk weer woo xam ne day ñëw pour dàq mbooleem jàngoro yi nekk ci àdduna bi rawatina ji ci gën a siiw muy coronavirus. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo tax yàlla bind jaam yi yàlla na yàlla def feebar bi yàlla jëlee ko fi jëlee ko ci Sénégal yëpp di ci ndokkeel jullit yëpp di leen nuyu ak seen présence comme ni nga ko waxee di nuy kilifa yi fi nekk yëpp. jërëjëf ci gàmm googu nga wax sax bëgg nañ nga waxal ñu ci tuuti rek parce que fii Sénégal heure bu weeru gàmm dugg see ñii dañ ci am ay gis-gis yu wuute ñi gis ne war nañ ko mën a gàmmoon yi ñi gis ne war nañ koo mën a gàmmee ñi jàpp ne waruñu koo def lan mooy sa jàngat ci wàllu googu. waaw gàmmu moom jàpp naa ni fii Sénégal euh, def ji mooy farata parce que ñun dañoo judd fekk suñuy baay di ja di gàmmu suñuy maam di gàmmu euh, te yonent bi sallam dafa am lu mu wax xaddis boo xam ni bu ñu ko déggee rek polémique gàmmu day jeex mooy xayrul xuruuni xarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum mu ni xarnu bu nekk ñi la jiitu ku la gën a jege yonent bi moo la gën te ñun mag ñi ñoo ñu gën a jege yonent bi kon nañ nangu ni mag ñi ñoo ñu gën ñoo ñu gën a ragal yàlla te mag ñi dañ daan gàmmu waaye di ko def nag ci façon boo xam ne day dëppook sunna comme ni ko Seyda Hadji Malick waxee ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udulu ñëw leen ñu màggal guddig yonent bi waaye condition bi mooy ñu def ko ci loo xam ni day tegu ci sunna réew mi nag ku wax gàmmu sax wax seex Seydil Hadji Malick parce que nag du moom moo fi njëkk a gàmmu parce que Cheikh Omar Fouti yu gàmmu na waaye Seydi Hadji Malick moo officialisé gàmmu waaw def ko ci façon boo xam ni ragal naa ni ba ñu bari roy ko mu tasaaroo donte mag ñëpp daan gàmmu Serigne Touba daan na gàmmu Cheikh na sat bu daan na gàmmu mag ñi fi mag réew mi ñëpp daan gàmmu waaye Cheikh Seydi Hadji Malick nag daal moom xëy na moom la yàlla dimbali mu officialisé ko def ko ci 1900 la ko commencé def ci Tivaouane ba tey jii àdduna bi yëpp di ko def wala Sénégal yëpp di ko def gàmmu tey jii nekkatul événement am le monde islamique sax ñu ngi koy def parce que problème mu gàmmu il faut ñu leeral ci nit ñi dara Arabie Saoudite ñoo amoon benn politique mooy xeex tasawuf pour fexe tasawuf bañ a tasaaroo ci àdduna bi ñu am benn programme ak benn idéologie di ko di ko di ko jàngale bañ demee ba xam ne idéologie boobu baaxul gënul ci ci àdduna bi muy idéologie idéologie wahhabisme ñu xëy dàq leen génn leen wane ni tey kum neex nga gàmm saoudia ci boppam maanaam réew ma que royaume ñoom ñoo décrété ni léegi kum bëgg gàmm mën ngaa gàmm kon loolu Arabie Saoudite ñoo ci doon sonal nit ñi rek waaye suñ mag ñi ñoom bañ commencé gàmmu yàgg na te gàmmu yàlla moo njëkk a gàmm parce que boo delloo ci alquran di nga fa fekk yàlla di wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi man yàlla mag samay malaayika ñu ngi ànd di julli ci yonent bi te Abdou Khadir jaamu yàlla yëpp yàlla bi mu koy santaane menn daf li dañuy def leen ko julli li muy foor foor yàlla dañuy julli leen aqimi salaa woor li muy foor foor leen joxe leen koor ci ku man ah azaka muy foor yàlla dañuy joxe leen azaka ci ki ko man aji màkka noonu waaye bi mu agsee ci julli ci yonent bi dafa wane ni moom ak ay malaayikaam ñu ngi ànd di julli ci yonent bi man ak samay malaayika ñoo ànd di julli ci yonent bi ah kon da gis ne julli ci yonent bi rek la yàlla di def ci jaamu yàlla yi ci yi ñu xam alxuraan saxal ko kon toog ba deux mille vingt deux ngay wax gàmmu bi daalam du bi daal loolu du débat fi ne ci Sénégal du débat tamit ci àdduna bi léegi lii débat mooy nan la ñuy fexee ba améliorer gàmmu ba umma bi ci boppam jariñu ci bañ koo def affaire folklore bañ ko def affaire dajaloo di lekk cere comme ni ko ñi sant Cissé di defee ak ñi sant Sakho mais mu nekk ay discours yu concret comme ni ko mag ñi daan defee discours yoo xam ni buñ ko teniree umma bi yëpp dinañ leen mën a orienté ñu ngi ci ndokkeel jullit ñëpp di ci ndokkeel xalifa généraux yi di ci ndokkeel église bi parce que ñu nag ñoom ñoo bokk réew mi ñu dëkk fi dëkkin wu rafet waaw. macha allah euh, point bi egsi na euh, bu weesoo loolu waxtu wi nga xamante ne ci la ñuy waajal gàmm gi ak di ci dem euh, jamono yooyu ñu ngi wax li nga xamante ne moom moo di situation réew mi muy pré Euh, campagne yi nga xamante ne moom la ñuy def gis nañ bu yàggul foofu la ca Casamance ay violence yu tar yu nga xamante ne amoon na foofu ci waxtu yu nga xamante ne leaderu Pastef bi bi mu demee di wuy ji ay ñu nga xamante ne euh, ci Unacois la ñu bokk la ko ñu ku ñu wax ñoom duduka dogale ci li nga xamante ne moom moo fës ci information yi ñu def fa violence bu nga xamante ni selon li nga xamante ne sax euh, kii di Diomaye fay bind na ko mooy dañ ko doon fexeel pour bëgg a jël bakkanam donc na naka nga jàngatee situation boobu waaw situation bi jàngat bi ma ci am rek mooy di ko ñaawlu ba pare di ko di ko di wax ni ñi ñu dénk réew mi nañu jëlaat seen ay responsabilité pour fexe ba justice des ci réew mi parce que république bu ñu koy wax li leen lii garantie république mooy ñu fexe ba justice des ci réew mi bañ a dem ci justice deux poids deux mesures réew mi nag lu waay mën a wax xam ni am na fi ay magistrats yu digne yu yu moom seen bopp bëgg réew mi ñooñu tey am war nañoo am courage ba kenn du leen tënk ci bu ñu gisee loo xam ni fa mu jëmee Sénégal buñ ko seetaanee ëllëg kenn du ci mucc parce que ku toog naan sama yoon nekku ci xamoo li xew parce que violence buñ ko commencé te ñi ko commencé nit ñi amuñu courage yu ni leen bàyyi leen ko violence bi dina continuer te Sénégal damay wax ni li fi xew mois de mars ñun ñëpp fi lañu fekk réew mi yëpp naqarlu ko kilifa diine yi jóg wax ci ba yàlla def dal am man nag li ma gëm la Hegel waxoon laa gëm la paix c'est pas un mot c'est une mode de vie maanaam jàmm du lu ñuy wax lu ñuy dund la kon nañu dund jàmm li Diomaye fay wax neexut a dindi parce que jamaay fay nee na embuscade la bu ñu lalaloon Ousmane Sonko pour faat bakkanam loolu warul am ci réew mu mel ni senegal parce que boo demee ci réew yu mag yi tey chef Ousmane Sonko kum neex ak kum naqari c'est lui le chef de l'opposition sénégalaise loolu la yàlla def tey kon kooku sécurité nguur gi moo ko war a yor tey boo demee réew réew yi ñi nga xam dañuy roy ci ñoom ci wàllu démocratie maanaam chef de l'opposition yi état moo yor seen sécurité tey état moo war a yor sécurité Ousmane Sonko loolu loolu mooy wax ji parce que tey même bu ko bu ko leneen dalee te nguur gi teguñu ko ko waa état lañ koy jiiñ est que jàpp nga ne euh, ni mu nekkee benn opposition wala opposant bu féroce jàpp nga ne ñoom ak seen euh, jalousie ci wàllu politique dinañ ko yenn sax yenn sécurité yi. waaw mais loolu constitution moo ko jox parce que ñoom moomuñu police moomuñu gendarmerie police ak gendarmerie police nationale la gendarmerie nationale dañ fi nekk pour sénégalais yi sa impôt ak sama impôt la ñuy dajale pour fay leen ci. nee na police bi police Macky Sall la. waaw loolu moom la engagé man li may wax rek man aw ma xam nga man je suis pas un politique man di ko assumer. waaye nag bëgg réew mi lii dox ci réew mi ma ciy wax sama xalaat li ma gëm mooy Ousmane Sonko tey sécurité am état moo ko war a yor yaa ngi dégg parce que lu waay mën a wax li fi xew amul amuñu droit mu fi xewaat te wolof nee na duma ma topp diw boo ko déggee fa ngeen jëm moo soriwul te wolof waxaat ni dëkkub dóore fa yow ko tas violence bi fu mu mën a mu mën a jóge man dama koy ñaawul nañu arrêté violence bi parce que kenn amu ci intérêt violence bi na ki ko mën a arrêté bu ñu naxantewul mooy nguur gi parce que nguur gi moo yor police yor gendarmerie réew mi suñ police bi ak suñ gendarmerie dara ump leen lu fi xew xam nañ ko luñ bëgg arrêté dinañ ko yaa ngi dégg di wax ni xalifa généraux yi ñoom yàlla moo leen fi teg nit ñi jël seen xol yi jox leen amuñu droit di gis loo xam ni fa mu jëmee Sénégal baaxul ñu ciy noppi encore une fois asumtu iqraar loolu la arab wax ku noppi rek da saxal te li xew nii ñu attaqué convoi am agressé ko kenn waru cee noppi parce que injustice bi képp kuñ ko teg même buñ ko tegee mag Sall dañ ko war a dénoncer man loolu laa gëm di wax ni nañu delloo si waat xel yi te dalal Sénégal tey Casamance tal na leneen lu dul lu dul lu dul violence parce que région la boo xam ne ñun ñëpp xam nañ enjeu yi fa am kon nañu dalal Sénégal yaa ngi dégg man loolu laay wax di ko wax ci mu nekk message boo xam ni dañ koy wax ak responsabilité parce que ñun ku yéegul sa responsabilité ñun yéeg nañ ko gëm nañ ni réew mi fii kilifa diine yi buñ taxawee ni ñu war a taxawee lu bari politiciens yi duñ ko ñemee ba koy def waaw. Euh, ci beneen côté ñu jëlee euh, lii di actualité bi ñu wëlbati ko dañ ñu tàmmal tout tout le temps lii di nga xam ne moo di diversion c'est-à-dire benn condition bu nga xamante ne nit ñi dañuy bàyyi la le nekk di waxaat ci la le ñoo ngi doon wax ci li nga xamante ne moom moo di passeport diplomate yi nga xam ne. ci instance yi gën a kawe ci hiérarchie bu gën a kawe ci état ñoom lañ jàpp ñu nekk di ko trafiquer mu nekk lu nga xam ne xaw na salir lii di image u Sénégal sax même à l'extérieur euh, naka nga jàngatee situation boobu. waaw xam nga euh, Abdou Khadre Sénégal boo dundee bitim réew ci ngay xam Sénégal dimension bi mu am au niveau international maanaam Sénégal du réew mu ndaw la nii ci surface mais réew mu mag la ci wàllu diplomatie ñu naw ko ci àdduna bi. book parce que seen diplomatie bu rafet te loolu commencé wul ci Macky Sall mu ngi commencé ci Senghor Senghor loo ko mën a waxal réussir na teg république du Diouf ñëw maintenir loolu malgré erreur yi jot a am Ablaye Wade noonu Macky Sall ñëw juddu après indépendance nit ñi am ci moom yaakaar joxoon ko réew mi mu ñu doon dik rupture la patrie avant le parti loolu la ñu doon wax kon tey scandale bu mel nii bu amee moom responsabilité am la mu def effort pour mu leer parce que am na am na loo xam ne peuple bi mënatuñ ko tolérer le peuple sénégalais ku leen xam da leen di respecté xam ne ay cadre ñoo fi ne ay intellectuel ñu teel a jàng lii responsabilité bi tey mooy li Moustapha Niasse wax dégg nañ ko nee na affaire bi dina leer mais nit ñaa ngi toog di xar ndax wolof nee na seetaan a dàq cim ndaje en tout cas lu li wolof nee na cin bu cin bu naree neex su baxee xeeñ te ni mu jotee di xeeñ nii moom leeragul parce que pression bi commencé na opinion nationale bi internationale bi ba tubaab yi ci boppam commencé di leen teg pression pour affaire bi leer kon sénégalais ñu ngi toog di xaar ba xam loolu xam loolu Moustapha Niasse wax day nekk ab déclaration Sénégal xaaratuñ ci ci ci régime bi fi nekk ay wax jëf la ñuy xaar ci ñoom ñu situer ñu situer responsabilité yi ñi nga xam ni seen loxo taq na ci ñu teg leen ay sanctions yu dur loolu la sénégalais yi di xaar. parce que affaire bii kenn mënu ko étouffer du lu ñuy étouffer jël na dimension boo xam ne il faut ay sanction am man lool laa gëm. d'accord lan mooy sa kàddu gu mujj. kàddu gu mujj gi rek mooy ziaraat leen sant leen di ziaraat jullit ñëpp ci weer wi di weeru sayyidina Muhammad sa alayhi wa nga xam ni moom moo ñu indil li gën li gën ci téere bi gën ci téere yi muy alquran mu nekk koo xam ne chance la pour àdduna bi. li cheikh Seydi Aji Maalik wax ni wa maa xalaqa arrahmaanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmudi huwa habib yàlla bindul dara ngir boppam lépp lu mu bind daf ko bind pour teralee ko yonent bi ñu profité ci tuubaat delluwaat ci ci ci gën a jàngale njàngaleem yonent bi waaye yoraat réew mi ci dëgg siwaat justice parce que justice mooy doxal réew alquran day wax ni yaa ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walaw ala ko ô oh, les croyants, observez strictement la justice. Soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Fils contre vous-même, contre vos pères et vos mères et proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et plus connaisseur de leur intérêt que vous. justice mooy doxal àdduna bi réew mën nga ñàkk lu nekk ba mu des justice kon nañu fexe ba delloosiwaat justice ci réew mi ku nekkul ci dëgg ñu teg la ci dëgg ak camp boo mën a bokk di wax ni ñu ngi santaat ñëpp. mboolem ku fi ñëw parce que tey bis la boo xam ne bisu mbégte la woote ñëpp ñëw say mbokk yëpp ñëw loolu sant yàlla la di wax ni nag euh, xëy na sax ñun mérité wuñu loolu nit ñi ñoo koy def rek ndax seen baax di santaat yàlla bu baax a baax ci gan gi mu ñu jox di ñaan yàlla na ko yàlla def jullit yàlla def ko citoyen de modèle parce que réew mi tey soxla na loolu voilà. jërëjëf euh, al imam Dramé ñun tamit kontaan nañ trop ci bés bi ci ñëw gi nga xam ne ñëw nañ fi sax du sax ñëw pour wàllu politique mais loolu dafa jaxasoo suñu dund. mais aussi ñëw ndokkeel la ci bis bi encore parce que suñu xarit nga suñu wëllare nga vraiment heure bu ñu la soxlaa rek da ñëw heure bu ñu jógee tamit euh, wala ci benn question dangay ngay bàyyi lépp loo def ñëw euh, kuy liggéeyal réew mi nga xaadimul wattan loolu lu nekk na loo xamante ne lu am solo la. kon mbokk yi loolu moo nekkoon seen jataay bu yemamaay bi nga xamante ne ñoo ngi ci doon waxtaanee lu jëm ci li nga xamante ne moom moo di actualité yi nga xamante ne moom mooy daw ci waxtu yi ñuy àddoo ñuy teewlu. ab Khadre moo nekkoon ci microphone bi libaas ci wàllu xarala gi ñu leen jox beneen dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax